waa kër gi yëpp. Mhm. te naan leen yàlla ñu commencé bisimilah. Mhm. te jeexle alhamdulilah rabbil alamin. waaw loolu moom allahumma amiin bi soobee yàlla ñëpp dinañ ci jot Fatou man tey da ngaa ñëw bandiwee. Euh, def say baske euh, tey daal am na daal loo nar. waaw ooy fal ko rek comme tey début di la te début du semaine la. Mhm. dañ koy far rek. Mhm. Mhm. alors Fatoumata fi ma bëgg ñu dooree suñu waxtaan nag euh, euh, déjà euh, gis nañu l'affaire Kaliphone Sall bi ñu ko jiiñee li nga xamante ni moom moo di viol ci diggante mag ak Thiaré. Mhm. gis nañu ni nga fës lool ci média bi porté li nga xamante ni moo di combat sa diggante ak Kaliphone. non sama diggante ak bu ma ko naree wax fii la ñuy fanaan parce que politique boolewuñu frère la ak sœur seex yàlla famille. deret ñu sama xarit di sama càmmeñ di sama seex di sama lépp tey mën naa ne famem tey man maa ko fa ëppawaale seen biir kër kon c'est très normal mbir bu mel noonu bu amee dal ci kawam ma jóg taxawu ko te bu ma leeroon leer yàlla ni takk na ci laale na ci duma ci ànd donte nag cautionné wu ma dóor dóor jigéen ku mu mënti doon duma ko cautionné parce que jigéen laa ku ma ko defoon mbaa nga def ko sama rak mbaa sama doom parce que doom yu jigéen dama koo yor du ma neex waaye dama gis ne ne acharnement di jóg ci kawam parce que takk tuumaal nañ ko te lañ ko tuumaal moom moo woowi gendarmerie moom moo dem moom moo wuyu ji moom moo yóbbu boppam donc buñ ci bëggee laxas leneen donc day yoon nag ñu jóg. d'accord mais ci loolu dañu gis ni yow nga soutenir ko. Mm-hmm. Euh, dégg keroog Adji Sarr. Mm-hmm. Euh, ci Californie bi ñu ko invité euh, ci benn télé de la place. Mm-hmm. mu Adji Sarr daal di réagir en direct par appel téléphonique. mu ne ko man li nga xamante ni moom laay eh, jiiñ kii di Ousmane Sonko muy viol loolu moo waral tey jii yow it ba nga jiiñee bañ la jiiñee viol mënu moon jug soutenir la parce que mënu ma nekk ci benn cause ba pare ñëw di contrôle lu ni mel mm. euh, tey jii ban gis-gis nga am ci ba nga déggee ni mel Adji Sarr communication moo baaxul baaxul benn yoon te lu ñu rafetlu lu ñu rafetlu aussi benn yoon lu tax nga ni communication baaxul si baaxul xam nga nax ren benn mooy woote gi mu woote woon foofu sax moom waru woon xam nga nit tamit sa tukuloo dafa am kàddu gu muy wax mu ne unondirooɓe cuɗondirta nafɗede mooy ñuy bokk di dëbbandoo nga bu may dëbb ngay dëbb ñu bokkaloo benn gën mënuñoo nëbbante ay poqotaan ndax boo yëkkee ma yëkki ku nekk sa bos dina feeñ aji saal communication baaxul te foofu amu fa woon pour dugg benn bu demee boo bëgg a génn bëgg a défendre boppam mën naa ne mais communication bi daxana baaxul sa gëm Ousmane Sonko mi mu jiñ yàqantaan la ay kilifa jóg di ko jàppale di ko taxaw adduna jóg di ko taxaw Asama ak moom gune gu ndaw te te te wéet wéet bu baax ci xare bi ñun ñu jóg man aji Sarr du ne ñëw naa këram bi ma gëj a dégganteeg moom yàgg na soxla ma koo dégg soxla ma dem këram gis naa ne kenn la koo xamante ne tooñ nañ ko wéet na ci xare bi li nga xamante ne mooy féministes yi délaissé ko li nga xam ne ñooy journalistes yi délaissé ko Sénégal wan ko ginnaaw ragal laal dossier bi ragal koo defendre parce que xëy na ñu ñu ñu banaliser ko moom ci boppam bay banaliser viol kon bu ñu gisee loolu gis tamit naqar gi muy dund amul ndey baayam mooy bariwul doole famem tamit mooy loolu mu ñëwoon di liggéey se ba am yu ko ci dal ñu dellu bëgg ko teg yenn kon ci loolu Fatoumata war leen cee maandu parce que bu ngeen di dimbali nit euh, te moom mi ngeen di dimbali. wax nga ko léegi nee nga communication baaxul yéen nga xam ne a koy dimbali. Mm-hmm. muy yow. di mm-hmm. Françoise Hélène Gaye bi mm-hmm. euh, la gën a jege euh, dafa dëggal ni ba tey ci Gabrielle Kane la nekk donc mu mel dafa gën a jege Gabi contrôler yéen est kon du ngeen maandu ci xeex bi waaw xam nga digganteem ak Gabriel kan digganteem ak Gabriel Kane man du ci wax mais sama bopp laa wax man maa pare man ci défendre aji saar man njaay man Fane njaay fii laa koy waxee exclusivité bi. Hmm. pare naa ci défendre aji saar dootuma taxaw man naan Adji Sarr Ousmane Sonko la may defaan mooy sàllangaari lam tor bourgade ay réalisation ak la muy def Fatoumata Ba noonu duñ la retaan ak li nga ci wax ma ndax lan xam nga ak li nga wax yëpp ci wuy ma xam nga ndax lan nga ko xam nga ndax lan nga ni jigéen la buñ tooñ waa gis nga ma chérie xam nga mbir mi mooy lan Adji Sarr yow déglu nga communication sans vous wala avec vous damay dem bu may dem gendarmerie àndu leen nag man te bu may dem bureau des juges ñu may entendre man la ñu entendre du yéen kuñ ko waxoon ku ne te yow ngay sonn ci nit ñu la ciy saaga di la ci wax lu ne di la ci menacer de mort di la indi lu ne di la ko tegal. li mu wax mais mais rek mais non non. quelque soit alpha moom mooy wuyu ma mais mais wuyu ma Ousmane Sonko mii toog na bu ma kenn défendre kan moo défendre Ousmane Sonko si Adji Sarr bi te ay kàngam ñu Adji Sarr amul la Ousmane Sonko am te Ousmane Sonko waxul loolu ñooñu. keroog bañ ko war a wujj dafa ma leen a ñaan toog leen bu ma kenn topp waaw wala déet waaw waaw léegi euh, Adji Sarr am ñun ñu koy jàppare ñun ñuy euh, moom mu nekk di tëdd ci lalam di lekk di naan di nelaw ñun ñuy nekk ci réseau sociaux yi di dem ci palaatoo télé yi di ko mu di peeral ma rek du ko defaar man man kenn ma peeral mbaa xam nga ne man ful mën na juddu goy ndeg bàyyi ful ak fenn borom mbaa xam nga ne man kenn ma xàllal yoon ba nit balaa nga maa freiné ma xam sama bopp yow sa gëm yow man ñun ñoree suñu bopp dina défendre fu ne dina taxaw fu ne ñu ñuy saaga fu ne du ñu menacer fu ne yow tey Adji Sarr bu amoon tey lu ko metti fii kër gii sax am na am na ñu fiy jote kër goo dem am na ñu fay jote Adji Sarr gune gu ndaw François Hélène ànd ak moom bi àll bi demee mu xus jàllale ko. Ah. moom mu osé woote naan François Hélène te mu ko doon wax yaay François Hélène Gueye man mii mu mën maa jur ma jox ko cër Adji Sarr naan ay. bu nekkee ngeen ànd yéen ñëpp boo leen ko mun leen ngeen bàyyi mel ni kuy wax ay doomam wala comme si c'est que Adji Sarr ñun dafa am lenn lu ñuy am ci moom wala li ñu koy défendre nii dafa am cause bu tax lu koy défendre mel ni mais est-ce que tamit du du cest euh, seen réaction moo ko parce que wax na ko ci wax na ko nee na comme yéen ñëpp da ngeen koy jàppale dafa bëgg ngeen ñëpp ngeen nekk ngeen nekk benn mais pas yéen di xiiroo nga yow ak Californie seen gang contre ki nga xamante ni moo di Gabriel Kane alors que yéen ñëpp am naa yow jàmm ak salaam nga ndax lan laaj ma leen ñoom man damaa naqari dara man xam ma gën a bañ sama aduna kaay wax li nga waxaatoon te mu mosuma see waxaa nit ba nga dégg ko feneen mosuma jëlay audio di ko enregistré. Mhm. di ko jël di pare di ko teg ci nit naan ay déglu leen audio ki wala may transféré ay audio parce que man xajuma ci yoon li nga ma gis nii ndaw naa mais damaa. damaa naqari damaa naqari dara non damay wax rek man damaa naqari man am na yoo xamante man xajuma ci. mais soo waxee loolu doo ko def kon am na koo def. ci yéen ci waaw ma xam nga xam na dama xool loolu man xajuma ci man sama bopp laa xam. waaw ah, mais Fatoumata nag franchise la nga xamee nag. waaye xam waaw xam nga ngay cof wax ji man yàlla ragal te yàlla bu wàccoon léegi ma kaas ko samay doléance man ñëpp xamee nañ ma loolu mais man dama ne man sama bopp laa xam man xaw ma di ànd ak kii di wax ànd ak kii di wax man nii laay def dama ne la ñii di ñii ñaan dañoo def calan fii calan amu fi man aw ma xaar ma yàlla Gabriel aw ma xaar ma yàlla François aw ma xaar ma yàlla ma Touré Pom aw ma xaar ma yàlla euh, euh, kii nu mu tudd euh, kii nu mu tudd Adji Raby Sarr ko amee lu ko metti mais yor na suñu numéro ñun ñëpp yor na seen numéro ñoom mënu leen woo mu wax leen dafa foog ne pour woote ci téléphone dugg ci ay ay ay ay direct di wax loolu la te Adji Sarr dafa ndaw ñun pour jox ñu ay leçon ah déedéet ah, ah oui ah, ah nag Fatou mais mais ma dañuy waxtaan dafa ah. ndaw pour jox ñu xam nga ndax la xam nga ndax lan. Hmm. Adji Sarr woowu ñu téléphoné kaa leen dimbali ma ñun ñoo jóg opté jàppale ko du du dara lu ñu am ci moom lu dul xeex ak utal suñu bopp ay noonu kon moom tey bu mënee taxaw tey jii devant 16 euh, euh, millions d'habitants yéen da ngeen di am xaalis si kawam koy jàppale ñoo am xaalis ah, que nag da ngeen di encaissé ay xaalis su dégg naa sax loolu moom moo ko métti ma ne la ba tax mu dawaat làqu ci nga xamante moom moo di Gabriel Kane yéeni guy am yéeni daqaar laay laaj yéeni guy am yéeni daqaar ñii di ut ci moom xaalis na dem waxaax ñooñu man soxlawuma ci moom un euro moom xam na ko laajal Adji Sarr ndax man mas naa koo seeti nit ñi di tëb di dal di dem di wër ji Adji Sarr laajal Adji Sarr ndax man mas naa koo seeti laajal Adji Sarr kañ laa gëj a dégg wax moom bi ma gëj a moom yàgg na parce que man gisuma intérêt naan damay seeti Adji Sarr wala damay waxtante moom téléphone amaluma intérêt keroog benn euh, liiwam benn frère am mu ngi Angleterre daf ne ma dama dugg Adji Sarr mais dama coupé parce que dama ne ko Adji Sarr soxla ma wax ak moom man gisuma. ah Fatoumata mi ñaaw nag de. déedéet comprendre de. Hmm. maanaam tey jii xam nga tey bu ñëpp di woo Adji Sarr day mel ni dafa am Adji lu mu ut am ñu ñu koy uti man gisuma lool ci Adji Sarr dama gis benn jigéen boo xam ne ne victime la ma ñëw di ko jàppale. non mais ci loolu su fekkoon te jii Adji Sarr du coowam ak Ousmane Sonko est-ce que di ko jàppale parce que ku ne xam na ni Ousmane Sonko seen concurrent ci wàllu politique. est-ce que du ni mel moo tax ngeen loolu euh, ngeen dem. xanaa yéen ñëpp daw jàppale ko. xanaa man duma jigéen pour ko xeex la ci kaw kii Ousmane Sonko. man la xanaa man du ma man duma jigéen man jur ma doomu jigéen man dama am samay doom ëllëg fu ñuy mujj man bu mag ku ma mënoon a doom su ma ko waree jàppale dama koy jàppale affaire bi du question wala ñàkk politique ñun jigéen ñi dañoo war a jox suñu àq ak suñu yelleef. non mais affaire bi nag politique bi ci nag Fatoumata parce que Adji bi mu bi hmm? mu jiiñee du benn jigéen da ta jàppale woo ko. non non ah, man dama dem ba ci Kaliphone. fekk ba biir gendarmerie fekk ba biir bureau bi mu nekk man kese maa amoon autorisation dugg mu mu toogee nii laa toog nii na ko dama lay laaj lii ndax yaa ko def defoo ko mu war ci yàlla war ci alxuraanul karim ne bu fekkee maa ko def bu ma kenn si yéen defaande man Adji euh, Kaliphone bi mu nekkee gendarmerie kenn gisuma ma wax dama toog xaar résultat yi résultat yi bi mu génnee dañoo ne xale bu jigéen bi dafa vere vierge nii de près nii de loin du lu yàgg du lu jege nii du ko góor bu ko mas sa jege waxtuma kaa di ko xosi mais coup et blessure volontaire lañ ko toppee ma ne ko amoo woon droit dóor ko quel que soit alpha mënu nga am maîtrise mun na ma mu génne loxo mu won ma ba tey cicatrice baa ngi def si Californie mun na ma xoolal Fat Fat Ndiaye xoolal lii mais Kaliphone tamit comme sa frère la jàpp nga ni keroog révélation yooyu mu doon def ci dunduñ la Adji Sarr waroon na ko def loolu loolu moom da ngay invité Kaliphone mu ñëw toog fii da nga ko jege nag mais mais nag xam nga lu ma ko jege jege xam sama gént dellu xam géntam moom moo wax te ne yàlla def na nekkul France mu ngi dali foor gi mais yow ban gis nga ci am laa la wax non man awma ci gis-gis xam nga tax awma ci gis-gis moom gis-gisam la wax gis-gis bi mu wax moom la concerne moom Kaliphone man Fatimata Ndiaye Fouta Tampi li ma concerne la mu wax am na wala amul tax a toog tey ah? la am na wala amul loolu ma ndax wu ma ñoom la comme te ñoom la bu Kaliphone boo ko invité bu toogee fii moom mu wax li mu wax fu mu ko teg mais man mënu maa wax ci place. mais yaa ngi yaa ngi déclaré tey daal que ni euh, coowal Adji Sarr Sonko yow retiré ngoo ci. waaw retiré wu parce que nag am gisatuma gisatuma intérêt tax may may. may kon dootoo defati live di xas kii di Sonko wala. defati révélation non dama ne xeexu Adji Sarr ak Ousmane Sonko laa pare mais man si lii di sama kanam mooy président Macky Sall Ousmane Sonko bu defee lu mu war a def léegi léegi ma génn. waaw mais Fatoumata Fatoumata ni nga amee fula tey jii jàkkaarloo suñu kanam euh, caméra gi ni mm-hmm. maanu nga. Mm-hmm. Euh, ci xeexal mm-hmm. que tamit du noonu nga waroon jàkkaarloo gi ni maanu nga tamit ci xeexal président Macky Sall pourquoi parce que. Fatoumata gis nañ la yow ngay xeexal Macky Sall guddeem ki suba ngoon. gis nañ la ngay xeexal ki nga xamante ni moo di Antoine. guddee ba ci suba ngoon mhm. seetaan naa la nga def live ni Antoine da sax du jël sa appel mhm. coono boobu nga ciy daj te amoo ci dara mhm. lu tax mandoo ci mbiru Adji Sarr ngëm-ngëm ngëm ak pas-pas ak bëgg xam nga sénégalais moom bëgg moo ko sonna ci lu bari mais ken du fekk si yàlla naa de waaye wuyu ma mbaa xam nga ne ku yàgg ci teen rek baat fekk la fa ah Fatmata yaa ngi ci bëgg yàgg rek te baat bi ñëw xëy na bu wéy jekk